asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa tarbiyatu wa taalim ñu ngi ci suñu waxtaanu koor nekk nag ci thème xam ne moom la tuddee temu mu koor waaye ak coronavirus xam nga ni al islaam alaaniya waaye wal imaanu fil qalb wa taqwa haahuna loolu yent bi wax yent bi nee na lislaam dañ koy feeñal gëm yàlla ci xol la nekk waaye ragal yàlla itam ci xol la nekk mbokki jullit yi wax bi dafa junj li alquran wax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun kon ñu war a xam ni bokk na ci liy tax nit ki ñu naw ko mooy xolam set wecc fees dell ak ngëm yàlla fees dell ak ragal yàlla ndax ñi ànd nag yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci boppam sahyuhum fi taatillah min xayri alaqa ñoom seen mbir yépp dañ daa ko daan dox ci topp yàlla te duñu ca jaxase leneen ko defee wayen si on al amma ñuy labiré ñépp nag min xayri tama appaluñu woon faqalewuñu woon nekkuñu woon nit ñu ñu xir xulubuhum lahu la te nee na seen xol yi dañ daan tiit fu ñu tollu ndax tudd ga ñuy tudd seen boroom mbokk yi ñooñu fu ñu tollu sikrullah moo nekkoon seen ngànnaay dañu dëkkoon ci laa ilaha illallah dëkk ci astaghfirullah xatta anaarat qulubuhum ba loolu taal seen xol ya loolu yóbbu leen ci dimasiyon yoo xam ni dañuy set wecc yéene ñépp jàmm xam nga al aarifu alaamatuhu hubbul jalil man aarif ki xam ni dafa naan ci géeju maarifa màndargaam dëgg dëgg nuñ koy xamee mooy cofeelam ci yàlla ak bàyyi léppam léppam bàyyi àdduna lépp woon ko gannaaw su ko defee mbubbum ragal yalla lay sol di dox doxinu ku ragal yalla di feñ di da dafay feeñ fi mu wara feñ waye da fay bari lu muy sey mana lo xamni day jek jek rek xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ku ñam cafka imaan ñu ni ko mooy kan mu ni mooy ki d'accord ni yàlla rekk a fi nekk d'accord ni lislaam mooy diineem d'accord ni Muhammad mooy yonentoom waaye yemu ca lenn lu nekk dafay xam aslu ba dafay xam baatin ba fay xam shahir ba fay xam lepp ndax yàlla dafa junju junj bu ci alquran moy li wax ni aw man kana mayitan fa ahyayna ki nga xam ni dafa réeroon dafa réeroon yaakar ni réerul mana jangon na waye xamewul mu ni afaman kaana maytan ndax ki dee firiwul dee foofu de fa ahyaynahu ñu dundal ko ci xam-xam ngir lan li yunzira ngir mu mu mën a fa ahyaynahu ñu dundal ko ci xam-xam wa jaalnaa lahu nuuran waaw ñu def xam-xam ba mu nekk leer mu nekk maarifa boo xam ne mën na ci ak gindi nit yi yàlla waxaat ci beneen aaya mu ne li yun sira man kaana hayyan ngir mu mën a wax ak ki dund ni moom maanaam ngir mu mën a wax ak ki dégg maarifa gis nga yàlla ni fala nu xayyi fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba nee na kooku danañ ko dundal ëllëg dund gu teey mooy danañ ko dundal ci aqiqa dundal ko ci maarifa moo tax yàlla nit istajibu lillah wa li rasulihi sa daakum lima yuhyikum kon yéen nit ñi buur leen ngeen jëm ci yàlla wuy ji yàlla wuy ji yonent bi jamono bu ñu leen woowee ci leen dundal lan moo leen di dundal yàlla nee na faarifoo nii qabla an taabudooni xam leen ma bala ngeen may jaam xamuloo ni tey feebar bi lëmbee àdduna tiital ñépp benn jaam bu ndaw la ci jaam yi nga xam ne suñu boroom subhaanahu taala moo leen yebal mu bëgg ñu tiital bëgg ñu te doomu aadama bu dee tiit yàlla rek la war a tiit suy ragal yàlla rek la war a ragal waaye warul ragal keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala kon mbokk yi ñu jox yàlla suñu bopp maa ngi ñëw ci beneen darche bi ko defee maa ngi yemale fi darche bi tey asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa ñëpp siyaar ñëpp